بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إذا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة macha allahu laa tudda fuuka comme ni ñu ko waxee euh, bésu tey léeru sabaa wa la ñu xamee ko fii ci kër Serigne Hadi moo ko doon taxaw ñaari at ginnaaw Maolana Cheikh Ibrahim ba bésu tey bi musta taxaw kon mu nekk 1978 ba bésu tey bi bés bi musta ñàkk am feebar na tëdd fële ca Amérique ñu won ko ne ren am nga ngànt mu ne déedéet bés bi dama bëgg sama ginnaaw sax muy muy am gën naa jot noonu sax nan ko waxee waaye ñu tegginal wax ji rek waxee ko nii looloo waral bés bi ak lu mën a am rek dinañ wone li tax bés bi du mës a ñàkk am liñ am ci ay kaamil sëriñ bi dina ci ñëw léegi am naa yaakaar ne dina tudd lim boo xam ne suñ njort àggu fa woon mboolem ñi doon jàng ay kaamil jàng nañ kaamil yi waaye fu seen nga sax am na foo xam ne kaamil yi daanul jóge foofu di ñëw kaamil jóge na fa ñëw ay kaamil yoo xam ne ñu ngi koy jàng ci bés bi mboolem lañ ci daan dund la itam amut lenn loo xam ne dana ci manqué lépp am na fa lillahi alhamdu wa sukuru ñu ngi si delloo yàlla njukkal bu baax di ñaanal ki fi Cheikh Mouhamadou Lahad bàyyi mu taxaw taxaw a dëgëral taxawaayam bu baax ndigal lim jëlee ci ay kilifaam mu ngi koy tatbiq maanaam mu ngi koy pratiquer ca gën gaa rafet anam bi mu gën a rafetee ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàgg tax yàggal taxawaayam kon ñu bañ xuus foofu lu bëri moom monsieur le maire Babacar Diame mu ngi nii toog bës bi nag ku nekk xam na nam daan demee kon jarul ñuy guddal li ko waral ndax di nga fi doon gis autorité administrative ci Kaolack yëpp nga gis leen fi waaye nga gis fi ay ministre gis fi gis fi ay cëriñ gis su ay kilifa aada lépp ci ki nga xam ne moo soos bés bi moo mel noonu waaye comme nii la ko yàlla dogalee ren alhamdulilah ñëpp ñu ngi teew ak ñun ñëpp lañ daan def rafetal nañ ko ñu gën a rafetee monsieur le maire xam nañ ne dëkk nga dëkk ci kër gi moo tax yow munoo cee ñàkk ñëw lenn rek moo doon tax nga ña moo doon tax nga ñàkk a teew fii mooy jànguñ benn kaamil waaye bu doonoon ñaari pour wala jàng war koo tëj sax da nga ñëw teew ndax li nga xam ne moo nekk sa digganteeg ki sosoon bés bi te nga koy gën di baax a baax baax a baax euh, niñ koy waxee te xalifa bi wax la ko yow yaay taawu kër yi taawu kër nag buy kër newtut kon mooy borom kër yi moo tax kon dara lu fi am sa ginnaaw lépp luñ fiy dogal yaa ngi teew te loolu bi mu ngi di dund moo ko yàlla yàggal ko fi yaa ngi rafetal bu baax a baax a baax a baax sëriñ bi dafay wax ne bu dee jëmm la bu dee kóllëre am na jëmm Cheikh Abdou Barham mooy jëmm ji waaye man damay wax ne jëmm jooju kon yow yaay mbubu mi koy mu muy mi muy sol yow yaay yére bi yow yaay taaral jëmm jooju ndax lii kóllëre rek rek rek moo ko mën yow loo mën ren yàlla nga mën déwén ko yàlla yàlla yàggal sa taxawaay yàlla eh, samp la ba nga taxaw téel la boppam kon jox la kàddu gi bisimilah muslimin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 di teg bépp njaboot ak baay ñu ngi leen di gërëm ñu leen di sant di ñaanal suñu xalifa bi dina yàggal yàlla yàggal taxawaayam ñu yàlla guddal fanam dina ko yàlla defal jàmm ak salaam bëgg nañ trop ci moom ndax ñaanal yàlla moom ak njabooti baay gi ak ñëpp ak taalibe yi yéen yàlla defal jàmm salaam sa musal ñu ci feebar bi nga xam ne tey moo nekk ci àdduna bi yëpp muy euh, euh, coronavirus bi yéen na ko yàlla génne Sénégal génne ko ci àdduna bi yëpp te bu génne yéen a bu mu dellu si loolu ñëpp moom la ñaar trop engagement bi nga xam ne tey Cheikh Baye jël na ko ndax lii mooy dégg ndigal ndax feebar boo xam ne euh, kenn xamul fu mu lekk kenn xamul fu mu jaar kenn xamul lu mel scientifique yëpp gestu nañ mu ëpp leen loxo àdduna bi yëpp foo dem ñu ngi jël ay ndogal pour di fagaru di ko moytu autorité dëkk bi à commencer par le président de la République jël ay mesures yu am solo mesures yoo xam ne tey ànd na ci ak ñëpp di kilifa politique di kilifa administration ñoom ñëpp ñu bokk jëlaloor ay dogal yoo xam ne pour lépp loo xam ne ci jàngoro bi la nekk ñu moytu ko ndax ñu aar njogal ci loolu ci la xalifa bi jëlee décision bu am importance mooy ñaax taalibe yi ne leen yàlla mi nga xam ne moo ñu andi lii na ko fi teg te yàlla mi xam ne moo ñu sàkk ñun ñëpp andi ko fi dañ ñu digal ne nañ ko moytu digaluñu ne nañ ko jëriñ xal yàlla mi ko andi wan nañu yoon woo xam ne wan nañ ko mën a moy ndax masque yi yoon na la yàlla ñu ko woon yoon woowu ne nañ sol masque yàlla woon ñu beneen yoon ne di leen di soree yàlla woon ñu beneen yoon ne bu fekkee ne julli bi nga xam ne dañ ne mbagg ak mbagg day tax euh, feebar bi dugg seen biir bay rey fi loo xam ne waru ko rey yàlla mu ne bu loolu amee ngeen moytu ko ngeen soriwante loolu sëriñ bi si boppam joxe ndigal famille baay na ñu ñëm nañu appliqué loolu ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm Cheikh Baye tey bu la neexoon boo woote woon tey fii day fees comme lañu daan feese waaye nga joxe ndigal wane ne képp koo xam ne danga daan ñëw di jàng ci kamil bi wala ngay ñëw pour ñaan nañ la nga toog sa kër la nga daan ñëw di ko jàng fii jàng ko fa nga nekk ndax xam naa ne tey bu limee lim bi dina xam ne lañ doon jàng daaw par rapport ak ni jàng leen ëpp na xam nga ko man ñaata la waaye wóor na ma ëpp na te loolu la ko waral mooy dafa jël ay matuwaay kaayam wane ne ñi ko daan jàng ku nekk fa nga daan jàng na nga toog jàng ko ñu xayma ko bu ñëwee fii toog mu réunir ñi nga xam ne tey dañu nekk mën na bàyyi te jege ko ñu toog ànd ak moom mu jàng ñaanal njaboot gi ñaanal jàmm yàlla yëpp ñaanal senegal yëpp loolu dana ci encouragé dana ci félicité man tey même bu ma ne yàlla na la raaj ci dama ñëw ndax lii tey mu am li ma leen bëgg a wax mooy lii am tey bu ma doon raam sax naa ñëw bu ma doon raam sax naa ñëw fekke bu ma ñëwoon sax yàlla jël ma fi ma ne alhamdulilah rabbil alamin sama njaboot ne alhamdulilah rabbil alamin nag ndax xam naa ne loolu la am solo ñu ngi gërëm eh, autorités yi ak commencer par le président de la République nga xam ne ñun tey mooy suñu kilifa. joxe na ay ndigal pour que collectivité yëpp maire yëpp jël ay engagement fële ma nekk di Foundiougne jël naa engagement pour aar njaboot lépp loo xam ne autorité wax nañ ko appliqué naa ko fële fu Foundiougne alhamdulilah li baax mi ñu ngi sant yàlla pour le moment donc ñu gërëm président la République ci bi nga xam ne euh, engagement bi mu jël di aussi gërëm le ministre de sant di ko féliciter ministère santé mooy suma maire fële ci Yoff ndax man mu Yoff laa dëkk ministère santé Abdoulaye Diouf Sarr mooy maire Yoff bu ñëw pour ay nit ci man la jaar pour mu utal ko ay nit ndax mën a falu donc kooku seen suma xarit la engagé wu na vraiment ku jara félicité la félicité nag ñi nga xam ne ñoo féetewoo docteur bi wàllu engagement ñu ngi leen gëm leen ñi nga xam ne tey ñoo yore diina ji buñ bañoon day métti ci askan wi yëpp ndax buñ mënoon askan wi yëpp topp la waaye ñëpp joxe nañ ndigal ba askan wi topp leen taalibe yi topp leen ba léegi ñu ngi sant yàlla bu baax ñu sant yàlla bu baax ñu ngi gërëm waa kër gi di gërëm taalibe tey mbooloo mi bëriwul waaye bëri na mbooloo mi bëri na ndax tey ku nekk yaa ngi téye sa rajo di déglu donc mbooloo mi nekkul fii mais dafa tas gisu mbooloo ma fa nekk mbooloo mii déglu lii ñoo ëpp mbooloo ma fi nekkoon daal waaye doo leen gis ñi fi da ngay gis lu ko waral mooy dégg nga euh, dañ ne dañuy respecter distanciation bu njëkk dama naa toog dënd ak euh, Cheikh Baye mbagoo mbagu bi ma ñëwee tey joxuma ko soxla ko salaamaaleykum maaleykum salaam mu toog ma toog ñu waxtaan loolu lañ toogee fii respecté loolu respecté aussi dogal bi nga xam ne mooy couvre-feu moo ne nañ vingt et à partir de vingt heures te couvre-feu bi ñun def nañ ko avant waxtu jot te bugg nañ ko bugle avant waxtu jot loolu mooy dégg ndigal ñu ngi ci gën di sant di gërëm suñu kilifa maam Baram Niass di gërëm oustaz Baram Niang noonu fi di gërëm Baye Ndongo Niang tey bu feebar loolu mu fii di gërëm soxna yi suñu yaay ji di euh, Mame Astou soxna Diza ak njaboot bi yëpp ñu leen di gërëm di sant euh, di gërëm imam Assane Cissé imam Cheikh Tidiane Cissé euh, fan yii la passé damaa gënt toog imam imam Assane mu solo ba rafet di daagu ba mu rafet wax na mais xamul wax ma sant yàlla bu wax te imaam damay feeñ lu suba donc vraiment ñu koy gërëm di ko sant imaam Cheikh Diane Cissé di gërëm jabar gi yëpp wax di du sori nañ xam ne tey la doon am mooy amal tey leetu xadar ñu toog waxtaan ci ñaan ci yàlla Cheikh Baye ñaanal ñëpp ñu dem loolu moo fi nekk tey yéen ñi nga xam ne yéen fi nekk maa ngi ñaaxaat seen association mi ngeen góorgóorlu ci du ma bàyyi di ko wax ndax association boobu mun na ëllëg mu nekk ONG boo ëllëgee njëriñ ñëpp lañu Cheikh Baye ñu ngi lay ñaanal yàlla ñu ne yàlla guddal sa fan ñu ne yàlla yàggal sa taxawaay euh, ñu ngi aussi ñaanal suñu mbokk Mauritanie muy euh, Tagidine euh, fan yëpp suma xel ci moom la nekk ndax daf daan ñëw fekkee ko doom yi daan ñëw fekkee ko mais gën nga tey Euh, euh, euh, confinement bi am tax na ba xale yi ñëwuñu ren waaye ñu ngi ñaan yenn yàlla defal jàmm salaam président de la république yéen a ko yàlla may jàmm ndax su amee jàmm ñëpp am jàmm nawet bi nga xam ne ñu ngi jublu yenn ci àgg ci nawet ak jàmm liggéey ko ci jàmm ak sàmm génn si jàmm ak salaam maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wa salaam. monsieur le maire kàddu yu rafetati na jaar na fa gën a rafet fam daan jaar vraiment niñ koy waxee rek ñi nga gërëm amaana sëriñ bi du si jaar ndax yow moom benn jëmm la te fii ku fi def dara rek yaa ko war a gërëm parce que yow la ci ut yaa ko war a def bu ko defee dañuy yegg si ci sëriñ bi mu xas mu li ci des continuer ci jotaay bi moom mu bouclé wu fii balaa vingt une waaye damay wax mbooleem muqaddam yi fu ñu mën a ne ci àddina mbooleem kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa Cheikh Baye fu ñu mën di nekk di déglu mbooleem lam daan def ci bés bi ren daf koo doublé képp fu koo xam ne baayam mu doon seq ak boom teraanga ci weer wi ak ci bés bi daf ko doublé ba boole ci ñoo xam ne bàyyam ay nit ci boppam lañ bàyyam seqal woon na dara bés bi lam ci daan def ci ay bés bi lam ci daan dund le comme ni ñu ko doon waxee bu ko defee ñu ngi dalal tey di Cheikh Aboubacar ibnu Cheikh Ibrahim Niass moo yegg si jotaay bi léegi dañu waroon yegg si jox sëriñ bi mu jàng xatmu bi balaa couvre-feu di comm di commencé muy 21 heures waaye jataay bi yokku na ak taar sëriñ bi yebaloon na ay ñaanam joxe ci ndigalam imaam tamit joxe woon ne xëy na ko wuutu ci xatmu bi kon doomi Cheikh Ibrahim Niass bu fi teewee moom moo gën a mën a jotal ñaani xalifa bi moo gën a mën a jotal nuyoo jotal kàddu yi boppam moom itamit kon bu ko defee euh, sëriñ bi ñu jox la kàddu gi mbir mi ni mu demee nii ren moo tax ñu defee ko nii respecté mbir yi loolu mooy dimbale doomi aadama yi ndax kuy digle lu baax yi tamit danga cee war a jiitu yow ci sa bopp segam nit ñi bu seen yaram yi sutantee dañuy daj sëriñ si kon sëriñ si waru ñoo mën def loo xam ne nit ñi dinañ gis ci ñoom luy da ñàkk dal seen xel looloo waral ñu defee ko nii kon ñu jox la kàddu gi bés bi bésu sëriñ aadi la bésu mbindee fi yàlla yëpp waaye bésu Maolana Cheikh Ibrahim mi doon soññi taalibe yi weer bi bu teroo nañuy ñëw di koy ooree fii buñ mënul yu mujj yi nañ koy ñëw di ko defee fii ku ko mënul nag bësu tey bi muy léeg-léeg sa baawa isrin foo mun ne da ñëw fii bokk ko am moom Mawlana Cheikh Ibrahim loolu mooy lim dénkoon taalibe yi dind wax dind ko bàyyi bi wax bàyyi bi kon looloo tax ba mu fi jógee ko Serigne Hadj di ci soññu taalibe yi kon bu ko defee ñu jox la kàddu yi nga jotal say kàddu incha allah ñu jàll ci fàttali alhamdulilah julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Ahmed Tidiane booleem sant ma sante ko ki ñu fekk ci lëndëm dugal ñu ci leer ki ko tuqal yi def ci yàlla ci yàlla sédd muy séddale kooku di kan muy Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass maa ngi wax jërëjëfee Baye ñu ngi sant yàlla bu baax ci weer bi nga xam ni muy weeru ngëneel nga xam ne loo ci ñaan yàlla yàlla yokkal la ko ndax dinaay wax ne doomu aadama yi góor góorgóorlu ci lu baax ndax loo def ci lu baax suñ lay bindal dañ lay bindal ay junne junne lu baax te gis nga lu bon nu mu bonee waaye yàlla ak yërmandeem su fekkoon ne def nga lu baax mu bindal la ci junne waaye soo defee lu bon tamit mën na la cee bindal ab téeméer parce que loolu yëpp mu ngi lay oyofal bañ rek bàkkaar di la topp saa su nekk pour wan la yoonu siraatal mustaqim kon sant nañ yàlla bu baax ci bés bi nga xam ne muy ci guddi laylatul qadr nga xam ni chaque année ñu ñëw ci kër gi nga xam ni ku màgg ko soppe yenant la kon na ko bàyyam bëggee woon muy cheikh Mouhamed El Hadi Ibrahima Niass kooku nag suñ koy fàttaliku bokk na ci li nga xam ni mun naa wax ne man mii tey di rakkam doom laa moom nga ñoom la Cheikh Ibrahima Niass yónni woon ñu ñëw Thiès ñëw tudd si ma foofu yàgg na ma ko wax yàgg na ma ko nettali waaye yàlla may na ma toog naak moom ci jamono ju muy nekk ci jamonom ànd naak moom fekk na ma Mauritanie moom ak Mamadou Ba mii ay yoonu yoon waaye tamit toog ak moom ay jotaay yu bëree bëri ba nga xam ne fii nga xam ne moom lay tiitaroo muy jam ñaajo ci île bi moom moom laa fa njëkk a ànd ak dem ci île bi te boobu sax xawma lu xew ndax boobu maa ngi nekk xale gis nit ñi di dugg ci kaar fii ci buntu këram man tamit yàlla may ma ni ma gisee ñuy dugg rek ma sàcc dugg te jour boobu ba may dem du ko fàtte mukk maa ngi sol short ak benn t-shirt bañ duggee ci gaal yi ba dem ba biir Foundiougne ñu dugg ci gaal yi ci la may soog a gis na ma yow lay def yi ak li nga sol ni ma nekk foofu waaye waxuma dara ma nekk foofu ñaa ngi gàmm waaye ñun ñu ngi dox ci biir dëkk bi di xool xaw ma sax li ñuy def lan la waaye ba ñuy ñibbisi ci xaalam moom Cheikh Mouhamed El ba ñuy ñibbisi ñëw nañ ci benn dëkk boo xam ne Rofangee lañ koy wax waaye keroog laa gis lu yéeme loo xam ne nit ñaa ngi koy def xëcc nañ gaal gi di ko xëcc ba yenu gaal gi dugal ko ci biir dëkk boobu keroog ba ñuy ñibbiwaat ci biir gaal gi gis naa jigéen joo xam ne boot na doomam ci digg géej gi mu daanu ci biir te kenn jëlewu ma gis ñuy daanu te loolu yépp xaal la boo xam ni lañ gisoon ci ki nga xam ni yàlla may na ko ci may yu mag a mag yi kooku mooy Sëriñ Haaji tey jii bësam la ndax bés boo xam ne la dañ koy fàttaliku yal na yàlla yokk leeram fa nekk duñ ko jooy ndax bàyyi na fi loo xam ne njëriñ la ci lim fi bàyyi parce que doom bu nekk dañ koy ñaanal mu niru bàyyam ndax alquran ba muy wax ad'uuni abaayikum la wax ndax nit duñ ko jël mukk di ko tattaleeg ndeyam wala nangam déedéet nit ci baayam rek lañ koy tattalee te alquran moo ko wax kon su ko waxee rek mooy yàlla moo ko wax kon bàyyil nañu fi moom Cheikh Hadi Ibrahim Niass mooy Cheikh Ibrahim waaye bàyyil nañu fi tamit doomam mu tudd Cheikh Ibrahim waaye kenn du ko xool mukk di rus ci xam waaye kenn du ko xool mukk di ca baayam ca lam nekkoon tey suñ ko doon seede ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak ak baayam ku mel ni Cheikh Barham Awa ku mel ni monsieur le maire mun nañoo taxaw ne gis nañ li nga xam ne baayam noonu la doon def mu fonkee woon doomu aadama yi bët bu set mu ngi ci gàmm yi bët bu set mu ngi oo nit ñi ñu dajaloo ñëw toog ci këram gi ñi wax ci yàlla tey gis nañ ni Cheikh Ibrahim bi am na ko ci boppam kon ñu ngi lay ndokkeel ci bës bi moo tax ma jógee Dakar ma dégg naa léegi ba ñuy bàyyi di def li nga xam ni mooy communiqué bi ne ah à part de vingt et une heures xaw ma vingt heures dootuñ joxe benn autorisation waaye nee naa ne jaral na ma ma ñëw te duma dellu pour fekk bés bi ndax bés bi ngëneel la ci mu bés boo xam ne soo ciy dox sa tànk gëm naa ne nii ma ñëwee dugg ci saal bi lépp lu ma tooñoon yàlla man ci sama bopp man Baye Mbaye am ci gëm naa ne yàlla jéggal na ma gëm naa ne ba ma duggee rek yàlla jéggal na ma ndax bés bu barke la ba su alxuraan la ba su dimbale jàmm yàlla yi ñu gisante te gisante ci biir jaamu yàlla yi rab dañuy ziyaarante kon loolu yokkute la ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal sa fan yàlla may la wér may la wér parce que duñ la jaanal lenn dañ naan doomu ñey bul ko ñaanal mu rëy ñaanal ko rek mu gudd fan waaye dëgg-dëgg dañ lay ñaanal lépp guddal fan yokkal xam-xam yàlla bu la seytaana topp mukk ndax tiitar la ci ñun man damay wax ne su ma gisee doomu Mérina lum ndaw ndaw ndaw ci zahir su ma ko gisee muy góor góorgóorlu rek dama koy naw dama koy naw sama xol dafay sedd te gis nañ ne koo xam ne la soo soogee rek foo waxee rek gisoo quartier général bii rek dama toog seetaan ko parce que ma ne manqué nga fa loolu xam-xam moo koy maye yàlla yàlla yokk sa xam-xam ñu ngi ziyaare ñëpp di wax ne ñu ngi ndokkeel tamit comme président de la république ci matuwaay yi nga xam ne jël na ko ñun ngi ciy gërëm ñu ngi koy sant na nit ñi tamit dellu xam ne lii ñu leen di wax feebar bi dëgg la nekkut loo xam ne caaxaan la corona dafa am te corona bii nañ xam ne kum yegsiwul ci yow rek mënoo koo gëm waaye nañ topp lu ñu wax distance yi nañ ko mayante nañuy jël masque yi nañuy bàyyi nuyonte bi su ko defee lépp tamit dana mën a kii ñu ngi ñaan président tamit ne ko dara du ko fi génne lu dul ñaan yàlla rek moo ko fi génne ñaan yàlla rek moo ko fi génne te loolu moom président na fexe góorgóorlu ba bàyyi jumaa yi même si dix personnes cinq personnes ñuy toog ci jumaa ji di ñaan yàlla yàlla danañu di ñaana président moom tamit ci liggéey bi ñu ko ci félicité parce que bokkuma ak moom xalaat waaye wax dëgg yàlla xalaat bii muy jël rafet na ñu ko ci dimbale di ko ci encouragé tamit di dimbalante ak moom ci loolu kon nag ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla yàlla defal ñu jàmm ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf ci kàddu yi rafet na lool yàlla yàlla gërëm li nga waroon wax li ñu waroon leeral lépp leeral nga ko waaye fàttali nga ñuy tamit Cheikh Mouhamadul Haadi ndax bés bi dëgg-dëgg dañ ko cee war a fàttali bésu alquran la ku bëggoon alquran donn ko ci bàyyi kon boo ñu fàttalee Serigne Haadi ci yërmandeem ak ci mbaaxam gis ko rek sa xel fàttaliku yàlla dëgg-dëgg loolu boo ko fàttalee jaam yàlla yi dañ ciy dégg bu baax bu ñu bëgg a téye ñi li nekk ci xol yi bëri na lool waaye comme ni ko monsieur le maire waxee ñi teew ren sax ñu ñi teew ren nii ñoo ëpp ñu teew daaw ndax ñi ne ci rajo yeeg réseaux sociaux yi di seetaan direct yi bëri na lool kon duñ def lu dul rek ñu bàyyi sëriñ bi maa ngi koy wax léegi lépp loo xam ne da doon xew ci bës bi ci dundule ci xaalis ci dund ci lu ñu war a nekk lu ñu war a naan lépp lu doon def ren da koo doublé luñ war a jox ñii ci néew ji doole yi ñii ci sëriñ daara yi ñii nangam ñii nangam lépp ngir rek ne daf ko waroon def ci bés bi waaye loo xam ne sax da doon ñëw ñëwul moom yëkkati na alalam jël ay bien lu jógee ci Baye Niass jaar ci sëriñ di yegg si ci yow foo ji xarul sa tànk tubéer rek dana xalaat kon yàlla dimbale na ko ba mu xam loolu ñu ko ciy ndokkeel bu baax wax naa léegi ñu teew ci jotaay bi daanaka li des ci couvre-feu fi bëriwul Cheikh Mouhamadul Hadi mu Cheikh Mouhamadou Makki mu ngi nii teewal waay juróom Euh, wax naa léegi tamit Baraam mu ngi nii Cheikh Hadi Cheikh Abdou Salam Cheikh Serigne Mbaye Niass mu ngi nii Cheikh Baye Alhaji Niass mu ngi nii mboolem ñi bàyyeekoo Dakar ñoom Adi Diaw ñoom président Pape Samb Imam Malick Ba bëri nañ lool kon bu ko defee li des ci temps bi dafa bëriwul ñu jox sëriñ bi mu jàng xat mu uutu ci imam ndax imam moom moo ko wax kon Serigne bi bismillah فينا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وخير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته balaa ñëw jàng xatmu bi ci ndigalal imaam Mawlaaye Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé waaye dina yëkkati kàddu yu tedd yu màgg yu barkeel ziyaare ko Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass xalifatul aam li saaxibil fayda ataala llahu baqaahu yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla na ko yàlla guddal fanam yàlla na ko yàlla may wér sembi mi nga xam ne semb na ko muy sembi baayam yàlla may ko kàttan ak wér ba mottali ko ci anam ba gën a baax ci anam ba gën a rafet moom mi nga xam ne moo ñuy jox ndigal yeesal ñu ko ndax wax ñu ne bés bi jox nañ la ci isne itlaq kon ñu koy gërëm di koy sant lii yëpp ay ñaanam la lii yëpp ay tëbbinam la ndax bu fi sëñ aadi di génn àdduna léegi mën na 15 ans boobu ay tout tàkk leen moo ñu tettee jàppale ñu soutenir ñu bañ agsi fii nii kon dëgg dëgg lu may faral di wax rek ñun jooyun bàyyi ndax moom mu ngi fi mooy sëñ aadi si ñun mooy bàyyi si ñun mooy awlaadi cheikh yëpp ci ñun ba tax na moom moo jooy rak nag mooy jooy xarit mooy jooy taalibe mooy jooy soppe muy rakkam bu mu bokkal ndey bàyyi muy cheikh Mahamadou Gaye euh, ba tax na ñun moom ñu ngi sant yàlla ci moom luñ def lu ñu ñaanal ko yàlla rek moom ak rakkam yëpp dalee ko si Seydi Moolaay Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahim Niass mi nga xam ne bés bii mooy njëkk a sonj ci nañ ko taxawal bi sëñ Hady génne àddina bees ci 2005 ma taal ko ne ko maa ngi dellu Égypte mu ne ma waaw guddi gu màgg gu barkeel googu nga xam ne sa waajur mi ngi ko doon taxawee man a foo ci lu tax dafoo ko rek ma ne ko ah, def naa waaye ci saal bu yem rek laa ñi bëriwutoon comme nii rek mu ma day koy taxaw loolu suñu soxla la suñu soosu ko moo gën nga neenal boo demee ba mënoo ko sax ba ñëwee ci ñun ñu jàppale la loolu Seydi wa Mawlaaya Cheikh Mouhamed Mahi Ibrahima Niass moo ñu ko wax kon dëgg-dëgg ci tànk yooyu lañ aw heure bu ñu nekk bu ñu gisee rek fàttali ñu loolu soññu ñu ci ba tax na dëgg-dëgg ñu ngi ñeme ci yoon bi bu baax a baax a baax waaye nag dafa jiitu nag suñu waajur bés bi daf koo fonkoon loolu tey jii ku nekk xam ne xat-xat am na jafe-jafe am na muy mas nii nga xam ne wàcc na ci àdduna bi jaaxal àdduna bi yëpp muy Covid 19. ñu yàlla yàlla nañ ko fàtte donte wax nañ ne mooy tur lu gën a siiw ci àddina bi actuelle ci jamono ji ñu amul lu gën a siiw coronavirus waaye boobu mën a coronavirus yàlla ko yàlla jeexal waaye am naa yaqin ne dina jeex am naa yaqin du ma nekk di warlu walla di waatu wala nangam waaye damay wax am naa yaqin ne dina jeex ndax lan fu ma ko teg du fenn lu dul ci kaamil yi nga xam ne jàng nañ ko fi tey jàng nañ fi deux mille trois cent kaamil yoo xam ne ñun ñaa ngi woote ba léegi pareegul waaye lu jot a ñëwagum ci Mamadou nii mu bind ko muy deux mille trois cent kaamil yoo xam ne wàccee nañ ko ci biir Sénégal yëpp loolu moom ma ne xaj na ci senegal waaye xaju ci ëpp na Sénégal sax benn kaamil rek ku nekk xam na ne ëpp na Sénégal lu ci nekk ci ngëneel ndax yonent bi sallallahu alayhi mooy wax ne waxuma alif laam miim xaraf la waaye alif xaraf la laam xaraf la miim xaraf bu nekk rek ay xasanaat yu nekk ci nekk rawatina ci bés boo xam ne ci la ci la ñuy séentu laylatul xadr ku xamul laylatul xadr ma xamal la lan mooy laylatul xadr doon tey ñëpp xam ne ko laylatul xadr mooy la mooy fiiha yufraxu kullu amrin hakim mooy guddi gi nga xam ne yàlla ci lay gorele ñii safara wala ci lay tor ci lay dugal ñii safara wala ci lay génnee ñii safara yàlla ci lay guddal fan nit wala ci lay gàttal fan nit lépp yàlla di sàkk ci ci at mi rek ci waxtu wii la koy def wala ci bés bii la koy def ku war a dee ren wala ku war a dund ren ku war a yëkkati ko ren wala ku war a wàcc ren ku war a am ren wala ku war a ñàkk ren ku war a tedd ren wala ku war a suufee ren loolu yépp ba si tey jii ci la ko yàlla jox waaye yàlla tamit def na ci muy bés boo xam ne moo gën junnee weer junnee weer ñu ngi koy nettali juróom benn juróom juróom juróom ñeenti weer juróom ñetti fukki at ak ñett ak ñeenti weer ci loo xam ne dañ ko jaamu yàlla ci jaamu bu nangu kenn mënut garanti na moom mën na dund juróom benn fukki at yoo xam ne dina ko jàmm juróom ñetti fukki at yoo xam ne jàmm na ko yàlla jàmm yu nangu waaye képp ku yàlla def ba nga fuglu bés bii ci ay ñaan rek mun nga def ba tombee bés boobu ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ yàlla may ñu tombee bés boobu yàlla na nekk tey jii sax ndax tey jii la ko daañu bàyyi doon fuglu wax nañ ne ci ñaar fukki fan yu mujj yi la ci witr lay doon dafay tóol te tey ku nekk xam ne ne toll na te bàyyi fii la daan xatmoo alxuraanam bi fii la daan xatmoo naafilam bi bon ñu ngi fuglu ci waxtu yi si saa si di ñaan yàlla coronavirus bi yàlla na ko yàlla jëlee yàlla yàlla jeexal ci àdduna bi ñu ngi ñaanal président li nga xam ne moom lu bàyyi doon doon wax rek borom gaal wala commando gaal boo ko ñaanalee mu mucc rek yow di nga mucc fi ne nii mooy suñ commandant gaal Sénégal gii moo koy gérer bon bu muccee rek ñu mucc ñu ngi koy ñaanal yàlla xel ak xalaat bu rafet boo xam ne ne dina ko am ba yàlla may ko ndam ci xalaat yooyu muy xalaat ba yàlla jëlee fi coronavirus bi yàlla mën na yàlla ko yàlla def di yóbbante nuyoo bu baax ci xaritam ci soppeem muy doomi kër gi di taaw kër gi comme ni ngeen ko xamee muy Babacar Diame moom mi nga xam ne xaritam la soppeem la àndandooram la di àndandoor rakkam tamit mu boole leen ñu Aliou sàll di suñu xarit ñu ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen ñaanal yàlla di ñaanal yàlla ministre de la santé ministre de l'intérieur ñoom ñëpp ñu ngi leen ñu ñaanal yàlla ci barke bés bii yàlla may leen ndam ci seen mission bi nga xam ne ñu ngi koy def ci réew mi muy mission bu métti métti métti métti yàlla na incha allah dimbale waaye di ñaanal képp koo xam ne na سيدي ومولاي Cheikh Aboubacar Al Moussanna Baye Mbaye MC nga xam ne tey dëgg-dëgg mooy moo fi teew teewaayu Baye teewaay bu rafet la fi teew tey wutu ci mboolem awlaadi Cheikh l'Islam Hadj Ramis mote ko nag ci xol bu rafet ci baax ci lawet ci yërmaane ci bëgg doomu aadama bëgg bés bii mosu koo tàdd ba mu koy tàmbalee ñëw kenn xamul kañ ba tey dégg ngeen jafe-jafe lu ñu xat xat xat trawul na xuus na ba ñëw tey tey kontaan nañ ci sa teewaay lool sa teewaay bii wutu nga fi xalifa bi wutu nga fi eh, Cheikh Mahamadou Mahi wutu nga fi porte-parole wutu nga fi imam tey bu mënoon a yëkkati jotaay bi yóbbul ko imam sax dina ko defal ngir fonk bu fonk bés waaye moo ñuy jox ndigal na ma Cheikh Baye demal nga toog nga xat ma ko boo paree na ma journaliste yi fekk man ma collecteur ba dëgg-dëgg loolu day wane fonk bu mu fonk bés bi waaye respect tamit respect li nga xam ne moom la état wax pour nen jël mesures yi na kenn ku nekk toog balaasam na kenn ku nekk toog këram loolu la respecté moo tax mu doxalee ko nii waaye ñu koy sant ñu ngi koy gërëm ñu ngi gërëm mbooleem ñi nga xam ne taxaw nañ ci bés bi ci biir Sénégal ak ci biti Sénégal dalee ci Babacar Diame mii ma wax ak samay àndandoo yi ma nekk ñëpp bugguma bu ma tudd tur waaye bu ma tuddee tur rek dina juum kenn mënut a waaye bu ma tuddee Babacar Diame tudd naa waa Sall yëpp kenn ku nekk ci yéen mën naa jaar sa tur waaye dafay guddal jotaay bi te léegi tey neuf jot moo tax dañuy leb tur yooyu ba beneen yoon waaye mënumaa ñàkk gërëm ñii ñoo xam ne ñoo nekk ma bind si bis bi muy Saloum Loum Lamine Diallo sama nijaay Talla Cissé waa Gambia yëpp maa ngi leen ñu nuyu ñoom dalek ñu Ousmane Ndey Aji Ndey Ba ñoom ñëpp maa ngi leen ñu yi ñoom Omar Youm Aliou Sall ma leen lu tuddee rek tudd naa mboolem état bi tudd Abdou Diagne directeur trans bi sama xarit sama naatan sama soppe Ousmane Nawel Dieng ak xarit sama Dieng Farba seen mbay Mbaye Thiam Abdoulaye Sarr ñi nga xam ne doom la ci kër gi Abdoulaye Sarr am na taxawaay bu rëy ci bés bi saa su nekk rek moom ak Seydou Cissé ñu la ñuy gërëm di leen sant bu ma gërëmee ñoom dinaa gërëm waa Amérique waa Amérique dale ko ci Ndiaye Cissé Makumba Thiam dëgg-dëgg wane ne seen mbëggeel ci bàyyi Ndiaye Cissé wane na dëgg-dëgg ci kër gi la bëgg taxawaay bu rëy nu mu ko daan defee rek lu jamono xat-xat taxaw na ci bés bi moom ak Macoumba Thiam mi nga xam ne dëgg-dëgg fa bëgg bàyyi la am cofeel la ci njabooti moo daanaka tamit saa ba lépp luñ xewle rek mu taxaw ci ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant di gërëm waa Espagne ñoom Moussa Diouf Waly Thiam ñoom Saliou di gërëm waa France ñoom Hadi Senghor les Anta Tounkara ñoom euh, Ndiéma Diamé di gërëm Lamine Lo Sarr waa Angleterre ñoom Moustapha waa Kaolack ñoom Ousmane Lo ñoom Khady Thiam. ak waa Bétoir ak waa Fass Cheikh Tidiane ak waa Sam ak waa Medina Baye yëpp waaw dalee ko ci gouverneur Kaolack ci bés bi bu ñu demee waxtaanee ak moom da wax moom kenn mënut a aay nit ki jaamu yàlla kenn mënut ay aay nit ki julli kenn nit mënut a aay nit ki oor lépp luy xeeti jaamu yàlla kenn du ko ay nit waaye dajaloo la ñuy bañ ma ne ko ah dajaloo bu ñu daan dajaloo rek moom dootul amati ndax ay junne junne nit ñoo fi doon dajee ci bés bi. sëriñ daara yu nekk biir Kaolack yëpp ëpp na téeméeri sëriñ daara ak lu teg léegi sax ñu ngi wax na ñaar téeméeri sëriñ daara la ñëpp dañ ko daan def ak seen i daara ñu wàccee fi kaamil ba deux heures ñu bokk noonu ndogu ba minuit ñu zikkar ba fajar yooyu yëpp dara amu ci luy am mooy ne kenn ku nekk fa nga nekk di nga toog jàng sa kaamil nga yónnee ko ci numéro yi pour la dajale na numéro adat yooyu taali sëriñ daara yi suba incha allah jox ne leen rendez-vous ci midi am na ñu jot a ñëw yeewi ne leen am na ñoo xam ne ne suba la ñuy war a ñëwaat ñu mottaliwaat li nga xam ne ne mooy seen digaal ak ñoom comme nu ko sëñ aada daan dafay ak ñoom baaxoo ko dafa def ak ñoom incha allah dara du ci changé ba tax na foofu lañuy ñu yemal kàddu yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla ci barke kaamil yii nga xam ne wàcce nañ ko fi ak salaatul fatix yi nga xam ne jàng nañ ko ci ay millions yi millions Ousmane Diouf ci ay millions ci nu mu toll loolu yëpp jotuñ ko noté ci ay xulwa ci ay yaasin ñu ñaan yàlla ñaan yàlla mbas mii nekk ci àdduna yàlla teggu ko fi rek waaye Gambia Africa Europa Amérique yi Amérique du Nord Amérique du Sud Asie continent juróom yëpp ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla teg ndax dañuy wax ne xay feek yaa ngi koy dégg rek yow mucc ko ci ba ñaan yàlla xayu yii yàlla na yàlla jëlee ci barke yonent bi sallallahu alayhi ban duñ def lu dul teewal aajo yi teewal soxla yi ñaanal xalifa bi ñaanal mboolem njaboot bi waaye ñaanal moolaay Cheikh Mouhamadou Hadi Ibrahima Niass moom mi nga xam ne moo sunna sunna su rafet si te yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man sunna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyama képp ku sunna sunna su rafet yàlla du dëñ di lay fay sunna soosu ba keroog bés ba laa chekk na tey ruuxam ak mbooleem njabootu baay gi ak mbooleem waa xadara bi ci ay muqaddam ci ay taalibe seen ruuxu tey ñu ngi dundaat ci nafaxaat yi nga xam ne yàlla jox na leen ko tey fan ne laa chekk bi daalik nasalullah tabaraka wa taala أن يحقق لنا جميع الآمال والرجاء بجاية النبي صلى الله عليه وسلم إذا نستحضر آمالنا ورجعنا بهذه الليلة لكي يحقق لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الأمال وهذا الدعاء بجاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ñu teewlu di teewul xatma bi di ñaan yàlla bépp soxla boo xam ne waaye indi nga ko bii yàlla fajal ko xam naa mi nga ci Babacar ci projet yi ñuy ñaan yàlla projet yooyu yàlla na ko yàlla faj mboolem ñu fi teew maam Baraam tey moo fi teewal mboolem wala reseñaat yi ñu ngi ñaan yàlla yàlla guddal fanam may ko wér yàggal ko ci kanam njaboot maa ngi gërëm sama xarit yëpp samay sopp yëpp ñoom Balaaji ñoom Hadi Cheikh Hadi Abdou Salaam ñoom euh, Hadi Diallo Maodo Ba Katim Khalil Mukhtar ñu ngi lay bëggee gis neen la léegi ñu kontaan lool di nuyu bu baax suñu xarit suñu soppee Hadi ñu ibnu Cheikh Mouhamadul Makki Ibrahim Niass ñu koy di nuyu di nuyu Cheikh Oumé nuyu président Pape Samb tey nag dañoo naroon a teg première pierre Papa association Kër Cheikh Mamadou Hadji dañoo créé woon bugg a def benn daara boo xam ne complexe islamique Cheikh Mamadou Hadji lañ ko bugg a ba si tey jii lañ bëggoon a teg première pierre dajale neen ay millions ci compte premier million bu ñu njëkk a def Babacar Diame mii moo ko jëf a joxe mu jig ñu lool bëgguñoo wax yenn lan moo ci tegu boobaa cat dinañu topp waaye am neen loo xam ne mën nañoo tabaxal complexe islamique Pape Samba Gueye mais moom mooy président bi Babacar Diame mooy trésorier bi imam mooy mutahaddis rasmi bismil jamiya ñoom ñëpp a ngi toog fii tey lañ buggoon a teg première pierre waaye gis ngeen jamono nu mu demee moo tax waaye incha allah bu yëfi jeexee ba tëgg dinañ jàpp benn bés boo xam ne bëgg neen alam bi yëpp yéen ñëpp ngeen ñëw teew xam ne kat ñu ngi jëmbat loo xam ne ne daara moderne la boo xam ne dinañ ci jàngale ay dinañ ko jàngale franco arabe dinañ ko jàngale alxuraan dinañ ko jàngale bayti bàyyi ba zikar sax bëgg nañ ko faa jàngal bëgg nañ faa def juma bëgg nañ faa def kër gan teene bi am na xaalis bi am na yëpp sotti na ñu ngi ñaan yàlla daal ngeen ñaan feebar bi teggoo ko ba liñ bëgg ci machaar yooyu yëpp pour yàlla motal ko loolu leen përito wax ko ci occasion bi euh, complexe islamique boobu ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu jeexal yi yi ci jàmm ba nisar yooyu nga xam ne am nañ ko yàlla may ñu mottali du ma tëj mukk lu dul dinaa gërëm samay mag Fatimata Zahra bint Cheikh Mamadou Hadi di gërëm sama rak Cheikh Mamadou Lamine ci Amérique di gërëm samay rak yi nekk fii ñoom Cheikh Diagne ñoom Macky ñoom Ndeyama mboolem yi seen rak ñu la ñu nuyu di gërëm seen taxawaay waaye di nuyu di gërëm ñi nga xam ne ñooy jàppalante ak ñoom Babacar Badiane ñoom Cheikh Diagne Touré waaye di gërëm mboolem média bi nag média bi nag dama tudd yéen bu ma dee média rek gërëm naa ñëpp seen taxawaay rafet na lool bés bi yéen ko doon dundal ci xol yi. laata bés bi di egsi waaye di gërëm képp ku ñuy déglu ci àddina bi ndax fi ne nii nu ko Babacar waxee jotaay bi tuuti na naan ci zaaxir waaye lu rëy la ndax àddina bi yëpp a ñuy déglu ak yëpp a ñuy seetlu ñëpp a ñuy fuglu bés bi waaye bu toppatoon corona ko konoon ren di ngeen gis lu ngeen mës a gis waaye ñuy sant yàlla rek ci xaala bi nga xam ne noonu la demee ñu ñaan yàlla daal xaala bi yàlla ko yàlla soxla ba soxla yi ñaan yàlla ci barke kaamil bii kaamil yi nga xam ne wàccee nañ ko fi tey muy deux mille trois cent cinquante cinq kaamil ci yu ñëwagum ci nit yàlla teggi fi mbas mi ñaan yàlla yéene tamit xalifa bi Cheikh Ahmed Ibrahima Niass yàlla fanam tamit yàggal fi mboolem njaboot ci bàyyi ak muqaddam yi ñaan yàlla seen soxla yi nga xam ne ñëpp ñoo leen teewal ko képp ku fi ñëw ak soxla daal bu dul mooy yàlla bu dul tas mbokk yàlla na ko yàlla fajal si yi nga xam ne ñu ko léegi incha allah ba ñu teewal soxla yi aoudu billahi min ashaitan irajim bismillahi rahmani rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allahu akbar la ilaha illa allah allah قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب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 وبلغ مولانا رسوله مصطفى الصادق الامين وهو اصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن سعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيد بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر والعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين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 ما نسينا آمين وارزقنا تلاوته آمين وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغى مرضاته آمين اللهم ما قضيت به علينا من قضاء فجعله رشدا آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيدنا من أمرنا رشدا آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا آمين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا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 آمين وجعلنا للمتقين إماما آمين يا رب آمين اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين يا رب لا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين يا ربنا يا خالق العالمين آمين قل بيننا وبين كل ظالم آمين يا ربنا أنت ترى ما قد جرى واقسم بقهر من علينا جسرا آمين يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة الحرج آمين يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة الحرج آمين يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة الحرج آمين امدد علينا من حماك الأمنعين سبحانك اللهم لا نبي لنا اللهم احرسنا بعد كل ذي لا تنام واحفظنا في كل كل ذي لا يرام واجعلنا في جوار كل ذي لا حكم لا يضام اللهم انا نسالك من اعدائك ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بما شئت اللهم اكفنا بما شئت اللهم اكفنا بما شئت اللهم انك اعلم باعدائنا وكبابك وليا وكبابك نصيرا امين اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وحرنا وعبدنا وطاعنا وعاصنا اللهم اغفر لنا اجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا بزمرة نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وقنا ما اهمنا وما لهمنا من امور الدنيا والدين وكف عنا اجل المعتدين ولا تجعلنا فتنة الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه آمين ونور ما تلوناه آمين إلى روح سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني الفاسي اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه شيخ الإسلام الحاج إبراهيم يس وإلى جميع أولاده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 والخاتم لما سبقنا سراق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم على آل قدر القرآن العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح bàyyi. ñu suivre en direct ñu ngi woon fii ci Medina Baye euh, Cheikh Mouhamadou Hadi Ibrahima njiitu doomu Cheikh Baye Cheikh Mouhamadou Hadi Ibrahima euh, teewaayu Cheikh Aboubacar euh, Baye Mbaye El Hadj Niass ñëwoon fii teew moo jëmal tey jii euh, njaboot yëpp moo leen fi teewal doom laay incha allah ak mboolem kilifa yi am nañu fi teewal dinañu dégg xat mu faral noonu ci kanam incha allah rabbi di ngeen am euh, li nga xam ne moom mooy. Euh, nga xam ne moom mooy euh, live euh, streaming bi nga xam ne ay témoignages yu am solo yoo xam ne si mel ni Cheikh Mouhamadou Amine Baba def na ko ak Cheikh Mouhamadou Macky ak euh, Seydi Arabi mu Cheikh Mouhamadou Zeynab ak Cheikh Mouhamadou Bachir mu Cheikh Mouhamadou Zeynab ak imam Kabat ak par imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé incha allah war a nekk en live en online sur. chaîne YouTube Barham Universel Media incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulah.